wala ñetti bitéel yi ngeen yaakaar ni moo gën a saf dugal leen ko ci géew bi waaw dafa am solo ñetti bitéel lañ leen may mais loolu grand combat sax ci la bokk wala pour tout le monde trois bitéel dix minutes de préparation mystique un point un trait kon jeex na nekk fii di sotteeku rek jëmale suba au lieu de cinq minutes dix minutes la waaw léegi nag dix minutes lu ci waay di def war nga ko cee mën a def boo ko dépassé vingt cinq pour cent lañ lay dagg à partir de dix minutes nag cinq minutes bu ci topp un pour cent yi dañ koy dagg nay leer par minute un pour cent par minute kon loolu leer na leer na nañ waaye di sotteeku rek gars yi toog jëmale suba sedd bi sax ku la wàññil bi tee dalaa dimbali wax dëgg yàlla sangu ba liw say cër du joxe loolu baaxul ci mbërum lamb Albouri écurie kay baax ma kii mooy Brise de Mer. Albouri Brise de Mer. tey bii Goma. Brise ñëwal di Albouri ñëwal di alors Brise waroon na fi bëre jamono yële Kaffrine malheureusement combat ba mujjul am ñu mujj jox ko avance Albouri mu ne ayca na ñëw tooyal xaftaan bi rek laa bëgg. acca brise ñu bàyyi la nga nuyoo wax ak sa adversaire d'abord. waa auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim jërëjëf Sëriñ Tuuba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul ñu ngi nuyu kilifa diine yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu Malick Sane di la nuyu bu baax di nuyu journaliste di nuyu Habib di nuyu waa kër euh, sama gaayaan bi waaw Pape ñu ngi leen di siyaar bu baax waaw Pape Seck ñu ngi jàmm di ko ñaanal waa Sénégal yëpp di nuyu euh, policiers yi taxaw fii waaw di leen wax seen teewaay rafet na trop ñu ngi leen di siyaar bu baax di nuyu sama adversaire di ko jox cër bu baax di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal talak fekkee ba keroog bis bi di nuyu sama gaay yi ma àndal ñoo waa Grand Médine ku su mel ni ñoom Birahim ñaar ñoom Thiel Mber ñoom Limousine ku lim juum gaa yi ma maa leen di nuyu bu baax di leen siyaar di nuyu waa Sénégal wa salaam antanda ay Thiel Alboury looy nuyoo. salaamaaleykum mbooloo mi maa leen. salaamaaleykum mbooloo mi maa leen ziar di leen bëggee. Alboury xoolal caméra yi. asalaamaaleykum mbooloo mi. mosu billahi rahmaani rahim mosu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani maa ngi nuyu gars yi yëpp nuyu père ñu war fekk ñëpp du nuyu sama gars yi du nuyu sama gars yi bu baax a baax bala maa def dara dama nuyu waa Matam Poisson balaa ngay xëy man damay liggéey di travail Matam Poisson laay xëy chaque jour boo ba may fekk. jël laay jaay may tànn damay daan may liggéey incha allah voilà te incha allah du kàttanu yàlla. man doomu mbër mi ñaata liggéey man mbër mi liggéey laa man li ma am liggéeyam ak may. li ma am liggéey ma ko may kon maa ngi sant yàlla baax di gërëm waa marché poisson di jiital moo saw xam nga ak directeur ñoom xabaan ay ñoom alaaji jaar alaajaane ay gars daal du ma limee damay juum waa marché central maa leen di dem di nuyu waa Rufisque bi waaw Rufisque bi mu dëkk maa ngi nuyu di nuyu sama gars yi di nuyu sama gars ay ñoom xalifa ay ñoom laay ñoom gars yi boo yëpp mafia yëpp gars yi maa leen ziar ak sama mafia sama booy sama partibéle sama booy maa leen ziar di leen bëgg di nuyu waa Jolof waa Ndooji waa Kaolack maa leen ndax ñaari kaar fay jugee dama leen ziar waa Kédougou Kolda Espagne Afrique sud yëpp maa leen ziar leen woon ñu jàpp si combat bi xam nga waa Tëngéej ay ñoom Grand Moussa ay Tëngéej autorité yi nan lañ jàppale ñun amul lu Tëngéej waa Ndooji sama Ndooji sama dëkk du ko fàtte fa laa juddoo fa laa yoroo fa laa màggee di leen bëggee waaw di sant yàlla bu baax di julli si yonent bi di sama sëriñ waaw sëñ Babacar maa ngi sant sama sëriñ sëñ Babacar di gërëm waa Tivaouane ak njaboot waa Touba gi ñëpp bàyyiwuma kenn si kàttanu yàlla kii nag awul ma koy wax Brise de Mer maa ngi seetaan ay wax man xale laa mu déew maa bëre Njaay man ma si si laa mu dee bëri daan ko xam nga kon bu yaakaar ne man mooy lu amul leen lu may soxlaale si yow nag boo yaakaaree man am leen lu may soxlaale na nga sa bopp man xale bu ndaw laa damaa si yoon xam nga du yow yaa may freiné du yow yaa may freiné dama lay jox cër nag ndax grand frère yaa naan 2007 ba ngay ba ngay ba ngay bëre 2007 wallaahi asimi maa ngi si taalib maa ngi si maa ngi si daara ji doon tuut tànk billaahi di jàng doxagram di jàng nekk si daara ji kon moo yoolu xam nga kon nag dama lay wax lu leer na nga liggéey liggéeyoo de yàlla xam na ko xaw ma loolu naan ba say lex na nii nga ñëw fii di tuus di di yelkat ñun combat yi dama entraînement ba woos barki yàlla su ma amee leen ñu koy sóoraale loo xam ne am na yaakaar ne yow di nga ko def na ne sa bopp sañ naa laa bàyyi samay tànk taxaw ak sama loxo te doo ma daan man lu leen laa wax damaa judd si keppaar yu bëri xale bu ndaw a bëri damaa mën a sama sañ naa yëkkati samay loxo ah. bàyyi ko mu takk ba mu ma daan ko na ma jàppal mu jàpp ba mu ma daan ko kii ordinateur bu daa ko bëri foog te bu ma ko jàppee ko àll ba laaj ko kii du ma ma fi doo sax brisemaire mii nii brisemaire mii wallaay du moom may yàlla muy damay ñaanat yàlla na yàlla suturaal ma suur combat ba mais kii nii li ma liggéey non du pour moom quoi. ayca joxal brise mu toll. waaw. waaw li nga wax li nga wax dégg naa ko. bon sas nga man ne nga ma dama liggéey maa doo doon liggéey mais dinaa gën a liggéey incha allah parce que conseil boobu moom bu baax la dinaa liggéey bu soobee yàlla. bon xam naa nag ku naan man manuma bëree wala ay ragaluma wala ma jox ma sama tànk dafa mel ni des ngaa siiwul samay komba man yàlla dafa def amul benn mbindeef boo xam ne war na ma mën a jàngal bëree si làmb ba pare dañuy nekk si keppaar boo xam ne nii dañoo jógee foo xam ne nii mën naa ne lépp làmb dañu ko jàngal muy discipline muy yar ak teggin muy xam nooy waxee ak sa adversaire xam nooy waxee ak population bi xam bu la média yi timee li ngay wax lépp yàlla daf def dañu koo jàngal parce que ku yaroo si keppaaru Yaxya Jóob wax naa na sa communication war na mun na naayes jox na la respect nag doon bu fekkee maa la mag kon maa la mag amul benn problème mën naa ko jël naa la mag mais làmb chaque jour nga gis xale mag mu fi jàngal xale bëri bërki démb rek war na la yee du ma tudd tur nag bu fekkee ay affaire aas ngay wax mun nga ko déggee ne suñu liggéey entraîné pour bañ parce que dafa jël xaalis def ko si ñun ñu nekk ay ndaw wala mobiliser essai loolu la ñu war a wax waaye diw liggéeyal kooku jarul wax amul sens parce que sama liggéey arrange wu la man la arrangé kooku maa ngi si ay loxo yu baax maa ngi si ay maa ngi ñoom grand Fadel maa ngi entraîneur ak ñoom waaw ñu teg ma si igri dóorwaar ñu teg fi lu neex loo xam ne macha allah xam naa bu mu ñëwee bii dinaa xam lu may liggéey ak yow lu may war a bëri ak di sant nag waa Sénégal di woo waa Kaffrine di leen wax ne leen combat bi seen combat waa Grand Médine na ngeen waa xaar yàlla waa waa Diamniadio waa Grand Tëngéej Arafat lépp waaw sa dëkk am naa fay supporter Tëngéej ngeen dëkk noonu. maa ngi woo ñëpp di wax Youssoufa Niang nga jàpp si combat bi ma waaw Moussa Wagué international na nga jàpp si combat bi. Kaffrine dafa am maire bu bees boo xam ne nii maire bi mu ngi tudd Abdoulaye Sidi Sow waa Kaffrine am si moom yaakaar jeunesse su Kaffrine yëpp. ma nekk seen mbër na nekk mbërum Kaffrine nekk mbër boo xam ne tey bu ne tey maa ngi seen mbër mu mag. maa ngi koy ñaan dafa am bis yu a jógee foofu ñëw mu jàpp si combat bu baax a baax di euh, nuyu nag euh, spécial un monde parce que dafa nekk gën nekk Kaffrine ba pare nekk koo xam ne amagul lu bari di jàppale euh, laamu Kaffrine di jàppale sëriñ su yi kon Abdoulaye bu baax di la ñaanal woo si combat di woo Euh, waa waa waa Padoa euh, nu ñu koy waxee Aline maa ngi lay bu baax di la woo Aline di la woo nag waa waa waa Grand ne leen combat bi nañu mobiliser parce que grand combat yu ndaw. waaw sama booy bee da ciy bëree muy góor a bébé wowle publicité bi xam naa yaa ngi xaw a jur di wax bébé nooy bébé wowle la tudd suñu booy bu nekk foofu bu mën a bëri moom la tuddee waaw di nuyu nag Sénégal yëpp di woo ra joxe rendez-vous le a février à l' stade Léopold stade euh, arène allah yàlla may ma ndam si kaw Albury parce que mu ngi tagg boppam mu ngi wax lu nekk xale la ndaw la entraîné loolu moom amul benn problème waaw laspère bi bon sama benn sëriñ moo ma rek pour ma waaw di ko taalal di ko yaa a xam waaw di nuyu nag sëñ Moustapha Diouf waaw di ko wax combat bi sa combat la sama sëriñ yëpp maa ngi nuyu bu baax wax ñu gën a ñaan parce que soxla trop wa salaam ana borom saafeen yow laay wayal yey abi bo garmi baange waaw kii amul leen lu man du ma la manqué respect man dal ma yar du ma la manqué respect du ma la manqué man dama bëre ku dul ndaanaan ñëw bëre yëpp ay ndaanaan lan ma xamal loolu mais damay woo damay demaat ma central du woo ma saw xabaan ay ñoom Mbaye Bakka ay waa Mourtani waa tëdd ba gaa yëpp daal bàyyi ma kenn waa yebooy bi yëpp nañ dugg di woote waa Tëngéej ne leen na ñëpp dugg Tëngéej ñëpp a taxaw sama ginnaaw jàppale ma waa Kaolack waa Kédougou Espagne ñoom As ñoom Yefta gars yëpp daal maa leen bëggee xam nga dem woo ay ñoom mangoom ay gars yi daal amul kenn ku may bàyyi ku may bàyyi ak sa mafia bi ak samay mafia bi waa Kédougou waa Kaolack nañ ñëw na gars yëpp daal jàpp si quoi wasalaam yàlla may ma kaw si kaw Brésil ndam si kàttanu yàlla maanaam si kaw Brésil